jëfan nañu leen bu baax ci ànd bi ngeen ànd ak seen site internet bi di Buzz Actu 221 li gën a fës ci bopp xabaar yi nag dañu koy door rek kat yi nga xamante ne kii di Cheikh Bara Ndiaye daal dina koy yëkkati nee na kii di Farba Ngom nag am na lu toll ci 600 terrain foofa diwaan bu Mbour kat mbir munu mel nag fu leer nañ la ko teg ndax moom ci jëme boppam rek am na preuve ginnaaw rek émission yi nga xamante ne doon nañ ko def nag ci weeru koor bi ci émission yi nag ñuy dippee nag di ko jaarale ci télévision yi waaye nag na ci ab boo xamante ne rek yàggul salon d'honneur euh, foofa ca diwaan bu wal fajiri ki nga xamante ne rek lañ ca dalaloon du kenn ko do Cheikh Bara Ndiaye mi nga xamante ne rek ñëpp a ko xam ci parti bi di Pastef waaye nak ñëpp a ko xam tamit ci analyse yu am solo yi nga xamante ne rek dina koy faral di def ci langum politique bi ñu jàppee ko nag ab ndongo dara ginnaaw bu mu participer nag ci campagne électorale bi nga xamante ne rek Bassirou Diomaye fey la ci doon andal ginnaaw nag bu mu gisee ne rek boobu les candidats la Ousmane Sonko doon jàppale ci élection présidentielle yi da dinay def ay déclaration yu doy waar ñeel moomeel yi nga xamante ne rek ñenn euh, bu Sénégal bi daal dinañ koy ma ngay daal di dëggal moom nee na Farba Ngom maire bu Agnam nekk député APR euh, jot na am lu toll ci 600 terrain foofu ca douane bu Mbour 4 nga xamante ne rek foo la déclassifié la euh, xibaar bu nu mel nag kii di Cheikh Bara Ndiaye da ko daal di dëggal rek ñu ne daal am na ay preuve yu leer nañ Farba ngoom nag bu ko jéemee weddi rek na ko yóbbu fa mbaxana doonee benn ba tey rek la mu daal di xamle moo dina nag lu toll ci 600 terrain kii di Farba Ngom am na ko ca diwaan bu Mbour tam moom ci jëmmi boppam rek yoon na ay preuve di kat bi nga xamante na ko mu ànd assurance lool ci boobulee émission ba tey jógee foofu nag dañuy àddu rek wax ci naqar ak bi nga xamante ne rek moom moo dal ci kaw Viviane Chidid frère bi di woy ci turu Robert Chidid moom moo dal di rek dëddu àdduna nit ki démb fan ci weeru mai waaye nag dinañu ko jébbal boromam rek ni ki suba levée du corps bi dinañu ko amal ci hôpital Grand Bourg bu 10 jotee ñu toftal ca nepp ab mai alxames bu 11h jotee fi nga xamante ne moom mooy ca église Sainte Marthe bu Mbour waaye fas yéene ko jébbal borom nag ci armeelu catholique ya nekk ca diwaan bu Mbour équipe bu Buzz Actu 221 yëpp ñu ngi koy mastawu ci boobule tiis di ko jébbal njaal di ñaan yàlla yërëm ko te xeral ko aljana ci ngeen jëf ci teewlu bi bu leen fàttee abonné bés notification ngir mën a am